parce que defuñu benn effort defuñu benn effort mooy mu soog a jógee ndar ñëw dem seeti Maodo ne tey ma wax ko dëgg ba mu demee <laughs> sa law dafa mujj foxe ci dàll Maodo mu ko booma ko waxat way nga naan ma nit ñi nit ñi nit ana nit ana nit ngeen ma fa te dëgg la parce que Maodo nag entourage mënuñu ko dab mënuñu ko dab dafa mujj wax sëñ Babacar Si ni ko dee fi gëj waaw dee fi gëj dee fi gëj ndax daara ji soppeeku ne dee daal di soppeeku na moo paxi nag yu magate yam da ci gëj da ci gëj moo paxi wel yu magate yam paxi wel yaa fay nekk boo soxlaa wel dugal sa loxo jàpp waaye ñam ñam góore leen fay dàq ñu daw wuti feneen mu dëkk fa nga ñëw ni paxu welam di dugal sa loxo mu ni la càpp ba mu mu ne ko daara ju noonu la mel léegi dee fi gët daara ju soppeeku ne dee fi gët la soxlaa woo la boo ma soxlaa bind ma la soxlaa woo la yow boo ma soxlaa bind ma waaw mu jég moom foofu la mu jég moom mhm. na nga xam ne yëf yi eh, ku ko def barke rek al ku ko def barke rek al ko ku ko def liggéey nag doo al ko loolu mooy li ñoom xamuñu barke ñoom dañuy jàpp ne barke alkande la loolu la sëriñ Moussa nee na ma sax ci man waaw nee ma dama topp Maodo mu ne jëm ci jumaa ma nga sol maylus tiisi la ñaw lu ca mbubb wutal lu ko poche noonu amul poche nee na mu sol karba karbatu chinois yi na jël kaala bu ndaw teg ci boppam ne ma topp ba ci jumaa ne ma jullee ndoom moom ba mu wàññi ko ma toppaat ko ba ca kër ga ne ma ko may ma wér ne mu may ma wér ma ñu teg ci fukki fan ak juróom ma dellu si ko may ma wér mu ni ma mayoon naa la ko di mu ni ko boobu yàlla doon ma di ko ñaan waaw sa tool ga rek taxoon ma di ko ñaan waaw mayaat ko waaw parce que loolu façon am la kilifa gu ñuy dégg bu sol mbubu bu amul poche jël kàlla bu ndaw rek teg ci boppam sol karbetam ànd moom rek waaw yooyu la daan pour wax la ni mbooloo yitteelu ko moom waaw cëru yonent bi rek ko yittewoon ak ñoram ñoru yonent surtout ñoru yonent daf ko kenn ku ne am nga ko admiré yàlla xam na ko li ci doxal kenn xamul na mu toll li ci doxal kenn xamul na mu toll sëñ Babacar daf daan wax ni mosuma gis mukk ku bare fayda comme moom ndax ñëpp la yemal boo ko bëggalee li mu bëgg rek ngeen xaritam boo ko bëgg li mu li mu bëgg rek